lan moo xew diggante sëñ Moustapha ak Issa <laughs> lu xew diggante Serigne Moustapha ak Issa lan moo leen boole. man lu ma la mën a wax ci li ma xam man personnellement avec des camarades au niveau de Paris on avait tenu un, euh, une conférence de presse pour dénoncer la candidature de Issa parce que vous savez euh, contrairement à ce que beaucoup pensent le parti d'unité du rassemblement c'est un parti très démocratique. très à cheval sur les textes qui régissent le parti texte bi dafa wax ni pour nga nekk candidat il faut nga dem congrès dañ lay désigner c'est le président qui désigne c'est le président qui a ces attributions là il propose on va en congrès et le congrès d'investiture officialise Issa Sall il s'est déclaré candidat euh, unilatéralement contrairement au texte ce qui est prévu par les textes au pur lépp lu ñuy def dafay méngoo ak li texte yi wax d'ailleurs loolu moo tax ñu ngi nekk suñu deuxième congrès ordinaire Sénégal fii mën nga ma limal parti politique yi fii def congrès ordinaire waxuma congrès d'investiture de congrès d'investiture yomb na c'est c'est une fête mais congrès ordinaire de renouvellement des instances de base pour ñëw au niveau national pour renouveler les instances nationales gisaguma ko depuis que ma commencé intéressé wu vraiment gisaguma parti politique bu ko def. barewul ñemewuñu kon congrès ordinaire. et le pur pour wax rek ne le pur contrairement à tous ces partis politiques c'est un parti qui respecte ses textes suñu texte daf ñu wax tous les quatre ans il faut faire un congrès ordinaire et le mois dernier. enfin il y a quelques semaines c'était notre. mais mais balaa ñu ñëw ci seen deuxième congrès bi Issa Sall nan la mën a euh, décider de manière unilatérale s'il a été euh, candidat c'est parce qu'il a été choisi ou qu'il a eu la bénédiction de votre guide. non il s'est passé c'était tout un processus euh, Issa Sall il s'est déclaré unilatéralement candidat nous nous y sommes opposés euh, après il y a eu des concertations euh, il est allé voir Serigne Moustapha il s'est excusé de sa démarche. le Serigne Moustapha c'est le président du parti il n'était même pas le secrétaire général du parti c'était le coordonnateur national et le coordonnateur national au niveau des textes du parti ërëm moo nekkoon mu coordonner activités yi préparer le bureau politique superviser jaay carte yi loolu moo nekkoon rôle am il n'était pas le secrétaire général du parti contrairement à ce que tout le monde disait les textes du parti donnent les pouvoirs au président tu ne peux pas être dans un parti, ne pas écouter le président et décider de façon unilatérale. On est un parti sérieux. Mais pourquoi il est parti à la, avec la bannière du, du alors Non mais loolu laa lay wax c'est qu'en fait quand il est venu, quand il s'est rendu compte que l'UMIDEF euh, c'était pas du tout conforme au texte du parti, puisque comme je vous l'ai dit tantôt, def nañu une conférence de presse pour dénoncer sa candidature. Euh, il s'est rendu compte de ça, il est allé s'excuser auprès du président avec euh, les membres du bureau politique, le président euh, euh, Neneyu Kodiapele, et puis bon, malgré ça, il n'a pas joué le jeu. Donc à partir de là, certains militants, nous gueulent cette responsabilité, votez l'UNCO. Et la suite, vous, vous, voyez bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, limite Niwara moo di parti pur ña fa nekk dañuy jub la fa cër du la fa bàyyi xam-xam du la fa bàyyi euh, yére bu rafet du la fa bàyyi li la bàyyi mooy jub respecter askan wi jox cër askan wi teg si mu wax nga teg ci sa tànk doxal ak sérieux loolu mooy parti pur sa Sall nag xëy na perception boobu amu ko ci woon et au final. Euh, il épousewul les valeurs du du du parti prôné prôné par Serigne Moustapha en quoi j'ai pas bien entendu. ma ne euh, épousé wul valeur parti bi nga xam ne moom la sëñ Moustapha ak ay militants yi di prôné. li ma mën a xam daal mooy euh, doon na doxal doxalin boo xam ne ni méngoowul ak ni parti bi di doxee ni parti bi tegu xam nga ce qui est bien dommage Sénégal gis nga li nga tàmm ci sa parti boo yoree ngóor noonu ngay doxee ñun xam gi ñu xam loolu moo tax suñu parti. li ñu fay def lu jub lay nekk suñu parti li ñu fay def dafay méngoog li ñu toog waxtaane parce que les statuts d'un parti le règlement intérieur d'un parti qui vient compléter les statuts dañu toog waxtaane ko tëgg ko bind ko ñun ñëpp ñu ànd ci loolu buñ ci àndee dañ ko war a respecter respecter ko ak njub teg ko ci droiture loolu la parti politique doxe mais su fekkee ne yow da nga nekk ci parti politique boo xam ne nii si une armée mexicaine bëri na commandant commandant bu nekk jaar gauche lu ko neex def ëllëg boo yoree nguur noonu ngay doxale parce que on a senti ci présidentielle bu mel ni dafa am un lâchage euh, Issa Sall en tant que candidat amoon na. Euh, mbir yu ko manqué euh, l'incident de Tambacounda l'incident meurtrier de Tambacounda euh, n'a pas aidé et pourtant malgré tout il est passé devant un un Madické Niang euh, mi nga xam ne depuis trente ans euh, mu ngi sur la sur la sur la sur la scène sur la scène politique et qui n'a pas démérité parce que Madické sama sama xarit la damay bañ su déglu ma léegi am lu ko metti te moom vraiment nit koo xam ne dama ko bëgg la mais je donne juste un exemple Madické donc il est passé devant un Madické Niang avec euh, quatrième avec cent soixante-dix-huit mille voix xalaatul leen woon ne te yow yaa doon porter la contestation contre Issa Sall et c'est même pas surprenant pour certains euh, que mu doon yow nga remplacer Issa Sall parce que yow yaa nekkoon France boobu n'aviez pas beaucoup trop de responsabilité dans le parti euh, di xaacu di di critiquer Issa di di critiquer Issa Sall xalaatu woon loo ne boo leen ko jàppale woon ni ngeen ko waroon jàppale mënoon na am dara parce que Issa Sall c'était un candidat pris très au sérieux en réalité j'ai pas remplacé Issa comme nu mu la waxee sànq. il non quand je dis remplacer comme personnalité de première que de premier plan. ah non il euh, n'était pas la personnalité de. Non, oh. il était votre candidat. Donc il est devenu, à part Serigne Moustapha la deuxième personnalité euh, de, de premier plan au niveau du PUR. Non, en réalité, moom laa lay wax c'est qu'en fait moi je suis quelqu'un de assez carré sur les textes. Euh, Issa Sall il le coordonnateur national, Cheikh Cham était le coordonnateur national. J'ai été membre du, j'ai été membre du directeur, je le suis d'ailleurs, et je suis secrétaire général national. Donc Issa Sall remplacé wu ma ko euh, mais gis nga am na loo xamante ni moom laa wax sànq parti la bu organisé bu discipliné bu xam ni mu bëgg bu am démocratie donc nit nekk ci biir parti bu ñu gisee loo xam ne nii ànduñu ci dañ koy exprimer et c'est ce qui s'est passé loolu moo tax militants yi ñu ci bëri voté luñ ko. ñu ci bëri voté luñ ko parce que militant yu ci bëri et l'histoire leur a donné raison parce que gis nañ Issa Sall dem au niveau euh, de la coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ministre conseiller en l'espace de d'une année ou de deux ans donc l'histoire a donné raison à, à, aux militants du PUR qui ont refusé de voter pour Issa Sall parce qu'ils se retrouvaient pas ci ci ci moom ci moom doxalinam. mais c'est la suite de divergence avec Serigne Moustapha. ci la jël euh, liberté mënul am divergence mënul am divergence. alors ah, tax mënul am divergence xanaa on n'est pas en démocratie. on est en démocratie. ah c'est qu'en fait lu ma bëgg wax mooy divergence buy am day fekk nga teg ko ci euh, lu tegu mais su fekkee ne texte yi dafa ne nii la yow nga doxale neneen yow da nga enjamber les textes du parti du divergence. divergence mooy nga ñëw ñaari nit ngeen am ay point de vue xëy na yu wuute mais day fekk day nekk point de vue mais lii texte yi dafa leer c'est pas un problème d'interprétation là c'est un problème de discipline c'est un problème de discipline texte boo ko tegee contrat la yéen a toog waxtaane ko ba tënk ko li ngeen toog waxtaane ba tënk ko da ngeen ko war a respecter moom bu ñëwee di doxal doxaliin bu méngoowul ak ni teg ni ni texte parti bi di doxee ñu ne ko yow li ngay def du noonu man j'étais à Paris j'étais le secrétaire général de de la FENOC la fédération de l'Europe du Nord de l'Ouest et du Centre bi ma gisee ni muy doxalee ci biir parti bi dama ko interpellé ne ko c'est pas du tout comme ça yemu ma ko cek interpellé ko je lui ai envoyé des courriers bind ko plusieurs fois il a pas répondu et c'est parce qu'il a pas répondu qu'on a tenu une conférence de presse du rek dañuy jóg maire non non au pur il des démarches à respecter du rek da ngay maire jóg def lu la neex déedéet dañ ko interpeller plusieurs fois wax ak moom interpeller ko questionner ko wax ak moom tontuwul il fallait ñu wax ak moom autrement